Leewtoo ñoo leen di nuyu bu baax leen baalu àq leen baalu àq bu baax leen ñaanu jàmm di ko sax ci yéen ci tabaski bi ñu jógee baal na ñëpp ak waaye baal na ñëpp ak di ñaan suñu directeur général Thialis ñoo ngi koy nuyu baax DG di ko ñaan jàmm fu mu mënti waaye tam yàgg maar ma ànd ci caméra bi ak Malick Fall ak sama professeur comme ni ma tuddee moom moom Maane Modou Maane ñu koy ñaanal jàmm waaye yéen ñu équipe Leewtoo bi yëpp ñoom madame Niang ñu ngi koy nuyu baax baax waaye nuyu ñëpp ñu ne ci Leewtoo TV mbokk yi ñu ñëw fii ci terrain si te Sipes seet si benn champion yàgg maa gis nga ni bi dootu ko présenté ci lamb buñ ko waxee suñu xel dem ci waa Joal wala waa Joal Palmarin Mamadou Gaskel Kane ñu ngi lay waaw mais tey moom da nga ñëw rek def à la à la vitesse wala lu ma doon. waaw fekk rek ci salle bi. ngay engrais euh, nga am foo jóg saison lutte simple bi nga am loo def ci lutte frappe mu mel ni combat yi lutte frappe yi xaw ma nu lan mooy problème bi foofu. parce que làmb ay xale la dañ ko war a def yaa ngi dégg commencé sëriñ ñuy daw la loolu man xamatuma ci dara waaw moo tax ma lay sama parce que bu ñu ma jox rek mu delloo avance. kan ak kan lañ ci jox mu delloo avance. bari na bari na waaw mais ménager bi daf may naan am na ko jox sa avance waaye dafa def man ko man ko kan laa mu mel ni yéen mbër yi loolu dafa bëri ci yéen koo wax mu ne du ma tudd tur kon li fay moom ñu toog di ko laajal adversaire mu ne noo ko tudd turam mu yaakaar dafa pare ci moom. waaw waa léegi kon nan la ñuy def. waaw exactement affaire yi noonu la demee parce que boo tudd turam rek mu yaakaar ne da nga ko yàlla préparé xam nga da nga koy sosal affaire bi te fekk na ne jaar nañu fa boo xam moom mu dégg sa tur dégg li ngay def ci simple bi fekk na te loolu amul benn sens gis nga nit li nga nar a nekk ci àdduna te bu ma naree nekk champion roi des arènes kenn moo ci yàlla def na ko yàgg kon suñu adversaire suñu morom la ñëw ñu bëri. est-ce que les champion ndax nit sànq xam nañ ndax ci yow lu xam na ci bu baax. Euh, public bi it sànq aussi di la bëgg. ana lan nga leen mën wax ak waa Palma. waaw public bu lutte ak waa Palma xanaa di leen remercier rek. parce que gis nañ ni ñuy sonné ci euh, ñu war a remercier yi gis nga lamb bu amee biram amateur ñëwul mbër yi kese nañ fa est-ce que xam du am dëgg la wala du dëgg kon saa su ne dañ leen di war di leen nuyu di leen ñaanal jàmm sax ci ñoom yaa ngi ñuy am kàttan bi ñuy ñëwee ci lutte simple bi dañu seetaan waaw parce que loolu def ñuy motiver lu bëree bëri bëri day def si lu bëri waaw. Euh, lamb ji bu loolu nga koy def da ngay tëj wala da ngay jël vacance wala da ngay ne ci waat. waaw lamb ji bu tëjee damay nangoo lu tudd rek à peine deux trois semaines parce que man loolu xam su ma ko waxoon sax war nga koo xam lamb ji moom la tëj nga ma fekk tey parfaitement raison. c'est ça. moo nekk nag ci lay déglu jëlee Gaskel Diagne mbëru tubaab. waaw peut-être mën na nekk. waaw mbëru tubaab. da ngay làkk tubaab bu baax. waaw damay làkk tubaab ay tubaab lay supporté. waaw dëgg la dama am ay xarit tubaab ñu ngi supporté di ma liggéey. waaw di ma woo saa su ne di di ma nemmeeku ci fan laa toll ci saison bi. waaw kon nag c'est normal que pour ma dégg français bu ma defal woon école sax te am na habitude di wax ak ñoom. c'est normal pour que ma jege commencé. plus jàng naa lu bëri. jàng naa lu bëri dafa. ban classe la man egg naa ko troisième. Hmm. waaw ma tenté FM amuma affaire ma wax ma bàyyi. mais j'étais les meilleurs dans ma classe. Hmm. dans les meilleurs de ma classe. Hmm. oui. partie meilleure. je fais partie des meilleurs de ma classe. oui en 2004 jusqu'à 2008. qu'est-ce sama xarit bu classé waa dama leen di nuyu rek di leen saa fi ne parce que mënuñu maa fàtte bu may dox ba daje si kenn rek day mu ñëw. waaw mais parce que am xamante ne bàyyi nañ yaa ngi bàyyi nañ comme ñun jàngatuñu peut-être mën nañu fàtte mën naa wax ñu français ñu xam sax li ñu wax. yaa ngi dégg kon bàyyi ma nuyu leen ci wolof rek waa sama xarit yi ma bokkaloon Dallas maa ngi leen di nuyu di leen siyaare waa di leen bëgg saa su nekk di leen wax ne gën a ay jàmm nekkul leen ñu dajee di jàmm yëpp xam nga ba nekk ay xarit bu nekk nii ku nekk yàlla defal na ko li mu bëgg ñii ñu ngi ci beneen branche ñii ñu ngi ci bëre bi ñii ñu ngi continuer jàng ba tey ñii ñu ngi nekk ay professeur donc xëy na loolu la yàlla dogal. ma leen di ñaanal aussi ku ci nekk fi nga nekk yàlla defal la jàmm waaw. Euh, waaw nga bokk équipe wala lan moo leen boole. non Colifay bokkuñu équipe. mais salle bi moo ñu boole. ñu fi dund jàmm joo xamante ne nii. Euh, ana début saison bi am na loo gis di gaskel ñam te kenn waxuloo yaa ko gisal sa bopp amaanaa sax bi nga ñibbee am nga loo nekkali ñam ñoo xamante ne ñamuñu woon ñu ngi si voilà euh, cat moo ci mu am sanction ma lu bari mais aussi terewul jàngal na loo xamante ne gëm nañ ne naa suma bopp am naa suma bopp xam nga li may wax nit ñi li nga xamante ne jot naa passé maa ngi koy jégal ñëpp ci kanamu yàlla suuf wax ne làmb ak tàngoor biir làmb sax làmb bu jeexee ñu ne la yaa ma ne baaxul que dégg nga fi may waxee bu baax du ma ne làmb baaxul. man dégg naa mais bu la neex nga toj yax bi pour ñi nga xam la. waaw maanaam su hmm. hmm. ci bëri laa ci amateur yi laa ko teg lu ci hmm. a firndeel li la làmb baaxul. xam nga làmb du yëfu jigéen. déedéet du góor da ngay gis jigéen bu dugg ci biir làmb sax. nga xool ko mu mel ba toj. wala nga gis jigéen bu dugg ci biir làmb commencé ko bi yi di dox ba mbër dëgg la war a dëgg kon xam nga ne làmb baaxul nga gis nit koo xamante ne kii leer na la ne kii amul doole sax bu mu daanee jigéen boobu te bu duggee ci làmb ubbi mbagam yi toll ni mbër CNG ñëpp di leen baalu àq di leen xamal ne ci biir làmb kullu làmb beneen casquette la ñuy bëgg di gis waaw. ci yar bi te ci ci yar ci yar bi teggin bi. dina xam nga lan moo ma boo déggee ma wax la loolu. Hmm. Euh, amul ko suñu kër ga suma benn nit hmm. maa bi dama jël sama licence. Hmm. dama mu ne ma yow. biir kër gi wala ñu nekk ci biir kër gi mënoo xool kenn mënoo def nit lu ko métti da nga am yërmande mais boo duggee ci biir làmb rek nekk beneen nit lan la ah, donc yooyu moom foo xamante ne tamit du ko def. mais loolu gàllankoor boo tàqoolee loolu mu mel ni li ñuy wax mbokku ci séeréer boo demee ba takku yére yi rek doon beneen nit comme ni ko koy fay di def. dëgg la waaw boobu moo tax rek ma ne la làmb baaxul. waaw hmm. moo tax ma ne la làmb baaxul. parce que làmb bi am na li nga yëngu. non non ah yàgg ma bu takkoo mu mel ni du moom. Coly Faye nii nii mu toogee ak yar yii macha allah dal tey ñu xam ko ci moom nag yar ak tekki waaye bu duggee ci biir làmb ci doo toog ko xam. loolu la. moo demee noonu. bagage yi la wala. waaw peut-être na nekk bagage yi mën naa ñàkk nekk bagage yi parce que boo seetee ancien couloir yi nga xamante ni dañoo bëri ba bàyyi sax. Hmm. bu ñu duggee ci biir làmb. Hmm. ngeen mu ñu dañuy sol seen yëre ba naan yëre yu naaj ñëw toog seetaan. Hmm. ñeneen nit la ñuy nekk ñeneen nit la nekk boo leen xoolee rek nga xam ne kii y a quelque chose te ñëwul pour bëre waxatuma la nag ki nga xamante ne dafa takk ay galaaj. ñëw pour fay seen mbambam. ci wàllu simple kan war a gën a sonal. lamb simple bi. non yaakaaruma ne nit sonal na parce que ñaari la rek. mun naa daanee pour man ñi bëre leen simple ñëpp. ku ma ci daan daan. mun na lii. ku ma ci daan. yéeg naa sax kon koo mën koo mën def naa. koo mën kenn non xam nga loolu non boo yëg xam naa waaye loolu mais boo gisee. Ah. ma jot a jaar ci turu yenn gars yi. Hmm. xam nga dañ ko seetlu quoi parce que tamit li may wax ni aayul. waaw parce que ñi ma jot a wax foo ñu fekk dañuy joxente respect. Hmm. waaw on se respecte quoi. wax ci nit dara ci biir lamb aayul quoi. Hmm. dama gis ne garaaw donc amul problème mais on se rek la. lan moo la métti ci lamb bi nga bëggoon mu dem. li ma métti ci lamb bi ma bëggoon mu dem. wax dëgg yàlla CNG ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey bu baax mm. mais dama gis ne mbër dañ ko war a fekk mm. mais mbër waroon ñëw ñu ko def ba pare defee loolu rek moo moo nekk loo xamante ne touché na ma te boo gisee touché ma mm. euh, nekkul man aw ma lu ma fayee bu bëre man am naa ko saa su ne am naa ko dal na yàlla xeeb doole su ma ko amul it amal nañu ma ko yaa ngi dégg mais am na mbër yoo xamante ne dañuy bëree saison octobre ba juillet ba août. bu ñu egg sax demi-finale. daa léegi yow ngay bëree octobre ba août mënoo egg demi sax mbapat sax saa yoo demee bëree ñu fay 1000 francs xaalis boobu soo ko calculé. xam nga lu mën a def ci yow de leneen lu dul bëree. dëgg la wala du dëgg kon vaut mieux ñu arrêté inscription bi ñu dara ñu arrêté ko rek pour sauver yenn temps. loolu laa gis quoi. ana lan ci gis loo xam ne boo mu continuer. li ma ci gis. bu ma sañoon mu continuer. Euh, loolu moom. mun ma ci wax dara. amal itam mun ma ci wax dara. CNG ñoo jël seen opportunité boobu. jël seen responsabilité boobu. tey lu ma xam ci làmb ñoom ko gën a xam. parce bu ma xam bu ma xamoon. damay dem organiser sama comité boobu mais mënuma xam donc ñoo ngi xam ba tax na ñu organiser seen comité boobu euh, war nañu def loo xamante ne maanaam day continuer quoi euh, waaw. mayante nga xam nga àdduna amul solo te gis nga bëri. ma la wax ko ne sax loo gis ci àdduna day jeex tey maa xolli fay mun nañu bokk benn dëkk ñu daje ci làmb ja leer ma ne su ma ko mayee wala su ma mayee dañuy am sanction suñu saison yàqu dama koy naan nga sëgal ñu ko rek loo am rek am borom dara suma diggante yow. kon yow daal loo maye. man waaw vraiment am na ñoo xamante ne ma ko rek ak parce que mënuñu dëkk ci benn dëkk. yaroo fa màggee fa mm. suñu parents yi dëkk fa mm. yaa ngi dégg ñu bëgg a dund ci biir dëkk bi loo xamante ne fekk ñu ko fa ngir bëri mais est-ce ci sportivité loolu xam nga loolu yëpp li ma lay wax seen yëpp ci xeetu bëri dafa garaaw la day man ko di fay ñu bokk jaar mm. ñu bokk jaar ñu bokk benn koñ ñu dem ba at mu daan mu daan mu neex sama entourage lu neex sama entourage te lu ne xëj na si man mun naa jaar foofu pare ci làmb moom mun na jaar foofu pare ci làmb ba pare ngeen boole ay nit ñoo xamante ne am nañu problème te seen ñoo nekkul ci làmb comprendre voilà loolu moo tax am na yoo xamante ne dara jaru ko ci àll CNG tamit war nañu comprendre ne côté boobu comme par exemple tey man foo de mbër de nañu fa. waaye ñu ngi nii. waaw kilifa yi mbër mu ko tamit quoi doy waar tax. waaye gis nga suñu borom moo ko déggoo nag dama la demee woon. Ah. waaw mais kon bi ñuy gis nii ak bi ñuy gis ci lamb ji fu mu wute de kon. non benn la rek fi nga ma fekk rek ma fekk suñu suñu kii quoi. Hmm. usine bi nga ma fekk mu liggéey. loolu moo la ko wax. Hmm. sa diggante gas. gas ba dëgg fa yàlla am naa wax moom lu bari. Hmm. lu baax la.